jërë ngeen def seen ànd ak seen seen YouTube Tas Info bu dee gan nga aboneel lu jëm ci li nga xamante ne moo xewoon na mu di manifestation bu métti bi amoon fële ca Mbàkke waral station ak it li nga xamante ne moo di seen sànq ya ca aju yooyu yëpp ñu rajaxe ko ki nga xamante ne moo di moo Mamor Mbàkke kenn Serigne Touba am na ay kàddu yoo nga xamante ne wax na ko ci moom journaliste ba nekk fëre ca RT ca RFM Euh, yi am na ay kàddu yoo xam ne indi na ko ci mu di yéey yàbbi ci lu jëm ci li nga xam ne mooy li am ca ci Touba ndaxte la nga xam ne moo di manifestation ba amoon fële ca Mbàkke gaa yi mujj nañ wala yan ba àgg fële ca Touba raajaxe fa station ak li nga xam ne moo di lii di chaîne cent ak lii di Sonatel ba nga xam ne moo fa nekkoon. nekk loo xamante ne lu doy waar la loo xam ne ñoom ñu ngi koy déploré wu moom xalifa eh, kilifa gi di Serigne Mamour Mbacke Euh, am na ay kàddu yoo xamante ni moom itam euh, indi na ko ci lu jëm ci loolu ci loolu nga xamante ne ñi doon askano ci jëm ci Pastef ak ya ci aju ñoom ñoo amal yu mel noonu kon bala ñoo sore rek ñu ànd ngeen euh, teewlu ki nga xamante ne moo di Serigne Mame Mor Mbacke kenn Serigne Touba bi nga xamante ne moo nekk oustaz ci fële ca TFM gi nga xamante ne moo di télé bi Youssou ñu ànd teewlu ko xex dañ ma bëgg sank sànq rayante leen toj len nangam ak nangam taman dama nan Ousmane Sonko mom am personne bu fekkon dafa responsable té mhm. té ñi nga xamanteni ñoo di wa malgré ak luko man di metti ci jëmmi bopam ci ak insistance bu mu mëna wax ne teg nañ ko wa xana du nangu nak ñu yàq alali jambour jo xam mom mhm. bu dé limuy woté dëgg na ci mom mhm. la muy woote mooy nee na eh, day sellal gëmul sax ñom ñu tariix billahi la ilaha illa maanaam mais moom nee na murit la. wallaahi wallaahi am na sëriñ boo xamante ne. wallaahi moom mooy sëriñam. loolu lépp manipulation la. xam nga lu tax. ñun doonuñu ni ñoo xam ne dañuy toog nii rek xëy na di wëndeelu. dañuy am ay sources. parce que métier bi ñu nekk. paramètre nañ ñu am ay source am na aussi beneen seetlu bu ci nit ñi def ci par rapport ak loolu am na ku ma gis benn post mu def ko ci Facebook bi ne Ousmane Sonko bu fekkee dëgg dëgg taalibe murit la est ce que mës nañ ko gis mu dem ziar ci xabru sëriñ est ce que mës nañ ko gis mu dem ziar ci xabru yi xam nga loolu maa ngi gis démb mhm. mi ngi koy jéem a weddi mhm. démb maa ngi ko gis mu dugg barabu sëñ Tuubaa mhm. démb maa ngi ko gis mu dem sol njaxa njaxasu Baay Faal démb maa ngi ko gis mu dem ca Baay Faal ya waaye ko xam moom la muy dund moom nga méngale ko ak li muy def nii. Mm-hmm. boo xamee dara ree daf lay jàpp. sëñ Abdou Lahad day dafa waxoon lu am solo dañu woon koo xam ne waxi démbam ak jëfi tayam boo ko méngalee muy benn. Mm-hmm. jàppal gor pire ngoow. Mm-hmm. malheureusement méngoowul. man damaa gëm ne Ousmane Sonko lii mu ak moom li mu dund ak li muy gëm. opposé. saaga leen nag. loolu moom ma barkeeloo ko ci kàddu yi sëriñ Mahi ña saaga mhm. leen mhm. xam naa ne kaddu yi bu ngeen ko déggee ay saaga mhm. ngeen koy mottalee am ngeen ci ndigal comme ni ngeen ko bëgg rek saaga leen waaye man li ma gëm dafa am lu sama benn collègue sama benn xarit ma kumba bay waxoon ci benn émission mu ne li ñu bëgg a wax moom li ñu gëm ala kulli xaal danañ ko wax li ñu gëm moom danañ ko wax yow dee saa koo xam ne jiitewoom réew mësoo doonu ministre mësoo jiite benn bànqaas boo xam ne état ko teg ci sa loxo xam nañ fa nga jaar. Mhm. inspecteur impôt et domaine gor. Mhm. do am beta parce que xeyna man na am deug dëgg xamul ni état di doxe mhm. yow dèjà da nga jog rek don phénomène. ndaw ñu jog nek ci sa ginnaaw. ngay toj di tal di rajaxé yoro police yoro gendarmerie yoro armée. waaw yow bis buñu jëlee armée police gendarmerie tek ci sa loxo fu nit ñi jëm. waaw yow DJ If ndax mas ngaa dégg Ousmane Sonko mu né ndaw ñi bàyyi leen yàq bi. vidéo bi indil mako hmm Ousmane Sonko mm-hmm. bu manifester ci parce que station totale bi ñuy mm-hmm. ndax